tey moom euh, moo nekkoon suñu dernier jour atelier tey bu ñuy defoon nag euh, en collaboration ak suñu programme suñu partenaire euh, programme naatal mbay bi donc lu ñuy retenir daal ci fin wu atelier bi dafa nekk atelier boo xam ne gaan am nañ si vraiment vraiment njëriñ bu baax a baax a baax am na solo bu baax a baax a baax donc ci recommandation yi li ñu soxla woon si producteurs yi lu ñu soxla woon aussi ci partenaires techniques yi ak partenaires financiers yi am nañ ko donc nit ñi wax nañu seen xalaat wax nañu seen i jafe-jafe donc CANAS bind na lépp noté na lépp donc lu ñu war a def daal mooy dem dalluwaat direction générale jéem a toog waxtaan ak suñuy kilifa yi jéem a xool nan la ñuy def ba gën a mën a améliorer produit yi ba gën a mën a jël en compte production euh, préoccupation producteur donc di wax ni rek ni euh, dégg nañ leen euh, xam nañ lu ñu wax mais lépp lu ci mën a nekk rek incha allah rabi assurance dina delluwaat si ñoom. jox leen ko indi leen ko parce que xam nañu as njëriñ ji leen assurance amal ñoom aussi boobu xam na xam nañ ko. donc di remercier ñëpp surtout dooleel mbay mi nga xam ne vraiment moom moo ñu jàppale ba ñu def réaliser journée bi di remercier partenaires technique yi comme la SAED di remercier partenaires financiers yi lu mel ni CMS lu mel ni LBA lu mel ni UMSEC woon nañ fi vraiment vraiment vraiment wone vraiment aussi tamit seen ndëgër laay wone vraiment tamit seen bëgg assurance bi mu wéy pour mën a gën a jàppale béykat yi ak